ñëpp ñoo seq collectif des acteurs de la pêche ñu ñëwoon profiter ci occasion bi ziar ci sëriñ bi sëriñ Mountakha Bassirou xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér ziar aussi euh, son porte-parole sëriñ Bassirou Abdou Khadre ah ñu sant bu baax nag ci dalal bi dalal nañu waxtaan nañu macha allah xéewal jox nañu ay xéewal. Nous avons aussi euh, sakku nañ nous ñom ñu ñaanal ñu ñaanal collectif bi le Sénégal Nous ko ñu le président de la République le ministre de la pêche de l'économie maritime Alindoy. Ndoye mi nga actuellement di matérialiser la vision du président de la République Nous ah, ñu ci sant yalla bu baax visite waxtaan nañu ak sëriñ bi aussi par rapport ak jën bi nga xamante ni manqué na ci Sénégal wan nañ ko ne ko bu soobee yàlla aussi euh, collectif bi dina def tout pour que màggal gi liñ ci soxla ci jën yu indi ko. wax nañ ko aussi ne ko ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi nekk fii ci Touba collectif bi ñu ngi préparé ay jën yu baax composé de yaax coof doraat sedd lépp luy jën bu baax dinañ ko def participation indi ko si këri si këri sëriñ ji fii si Touba loolu wax nañ ko ko mu kontaan si loolu nag ñaanal nañu vraiment sant nañ bu baax daal macha allah waaw sant nañ sant nañ ñëpp parce que collectif moom kenn desul boo xoolee ñi teew fii tey amul ku des mareyeur a ngi fii mool a ngi fii industriel a ngi fii armateur ngi fi ban nak yakarna composante de la pêche yep ñi ngi fi ñi ngi sant yalla bu baax ci dajalo boobu nga ne te yalla suturaal na ba ñëpp dajé nañ nek ci ginaaw ministre de la pêche et de l'économie maritime pour faire secteur bi jëm ci kanam. Ah, je remercie Dieu et son prophète euh, Mohammed sallallahu alayhi wa nous étions venus aujourd'hui à Touba à l'occasion du grand Magal euh, de Touba pour. Euh, euh, rendre visite au calife général des Mourides, Serigne Muntaha euh, Bassirou et son porte-parole aussi, euh, Serigne euh, Bassirou Nous avons discuté vraiment avec eux. Nous, leur avons demandé aussi de prier pour le Sénégal, à sa tête le président de la République, prier pour le ministre de la Paix M. Alindoy, qui est en train de matérialiser la vision du président de la République et qui est en train de faire vraiment du bon travail dans ce secteur. Bon, aujourd'hui, si vous voyez le collectif qui est là présent, il y a tous les segments de la paix sont là. Vous voyez à mes côtés, il y a des industriels. À mes côtés ici, il y a des marieurs, il y a des pêcheurs. Pour vous dire que tous les segments de la paix sont là et sont ici présents. Bon, c'était n'était pas vraiment évident de regrouper tous les segments de la peste, mais Dieu merci, nous avons pu les regrouper tous. Bon, nous avons demandé, nous avons discuté un peu avec eux par rapport à la pénurie de poissons qui prévaut dans le pays. Nous leur avons fait comprendre que, Inch'Allah, le collectif de la peste, va faire tout pour approvisionner le marché de Touba. Mais en même temps, nous leur faisons savoir que le collectif a décidé, euh, en guise de participation, de préparer une grande quantité de bons poissons nobles composés de siar, tchop, sede etc. pour euh, pour faire habitailler les grandes euh, maisons, les familles religieuses qui sont là. C'était vraiment l'objet de notre visite. Nous sommes vraiment satisfaits et nous remercions le bon Dieu, nous remercions aussi le Khalif général des Moïdes et son porte-parole, euh, M. Euh, Serigne Bassirou